Diobass Info TV nañ dox ak Diobass Ablaye Ndion Ablaye Ndion tay jii def nga sa premier match championnat nga gagné ko noo ko gisee waaw waaw football day football nii la moom il faut am ko gagné am ko perte yàlla dogal na may na ma ndam ngi sama joueur maa encouragé waa pour eh, football mom nii la football mom nii la parce que am nañ ñun am nañ équipe boo normalement ci yoon bu dee football rek mën nañ ko xëy na nag naaj bi moo tàng moo tax mu deme nii waaye ñu xaar beneen prochain di ñëw contre Pirsa Daaro bon ñu football waat incha allah. gis nañu première mi-temps tamit raté nga ay occasion yu bëri. waaw première mi-temps bi waaw mi-temps bi dañoo amoon problème surtout suñu milieu terrain bi milieu terrain bi moo tey nekkoon suñu problème problème première mi-temps bi milieu terrain bi ñoom ñoo tey woon bal parce que boo jàppee bal bi nga renversé ko défenseur bi da koy tulli bal bu ñu renversé gars dañ koy dañ koy perte. dama leen rek deuxième mi-temps mën na leen dañ téye bal bi football ko ci suuf buñ footballee ci suuf mën nañu am dara yàlla dogal na tamit bon buñ footballee dernière minute yi lañ am bi loolu la yàlla dogal. gis nañu dernière minute yi tamit waroon ngaa dugal deuxième bi. waaw waroon naa dugal deuxième bi waroon naa dugal deuxième bi mais nag football daal noonu la. football noonu la. yaa ngi préparé sa prochain match. waaw maa ngi pare sama pré bi match bii di ñëw contre Kër Sadar. incha allah dimanche dimanche prochain incha allah. merci. جواز الرطوبة نمرة الجواز